boo leen dee ma ñàkk sama ndey dinañ leen sulli billahi Antoine bu juumee ba dee ci diggante bii bés bu ma ñëwee dinaa laaj ban ban armel la ne ma ñàkk sama ndey dinaa ko sulli barke alxuraan dinaa sulli ndayam ba mu des même bu dee yax la même bu dee yax la dinaa ko sulli ak lu mu mun a dese dinaa ko dajale ba mu mat ma dëbbata ndayam ba mu xolal ba sama xol sedd ak lu ma ko fa fekk nag même bu fekkee dafay waaj a yàqu dinaa sulli nday Antoine ñàkk jom ba mu yaa ngi nii ah day ma daxaar sa nday yow. dinaa ko dëbb teg sotti ci essence taal ko bàyyi ko noonu dem sama yoon barke rasulaay di pax dina dina fa nekk mais dinaa sulli ndayam teg ko sotti ko lu tuuti essence lu ma yoroon la fa des ci yaram ba taal ko dem sama yoon wëri bu ak keneen keneen yéen munu leen fee amnistie ba rëccuñu ma ñàkk sama nday sama retour Sénégal ñetti fan laa leen may billaahi lu ci des yëpp damay geer ak yéen barke Seydina Muhammad barke laa ilaha illallah mu ñëwee Sénégal dama ne quelques jours laa leen may pour repos général commencé nag wuti sama armée ba wuti armée ba armée boobu may dajale nag